le 5 mars 2024 à l'arène nationale Fatou Balla moo ko organisé woon Tapha Tine dem bëre fi ak kan All Mondiaux bëre daan jël bu rëy na ci li waral tey ñu déplacé wu fas yéene moom waxtaan waxtaan moom ci carrière fi mu jóge fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm kan mooy Tapha Tine Junior victoire bi mu jógee lan lay signifié instant bi fan la jëm ñan ñooy ses potentiels adversaires dans l'arène Tapha Tine est-ce que dafa pare pour bëre arène saison bii wala est-ce que day nekk ci mbapat rek lolou lepp ay question la sama gars yi léegi c'est une émission victoire après combat tafatine Tine Junior bu équipe Pikine mbolo moy sama invité rakk ma lay ziar lo ziar bu baax ma ngi rek ah wa ma ngi ziar ñep di bëgg ñep di bal ñep ak di sant suñ ñaari wajur <laughs> waaw di ziar ñep wax dëgg na comme ni nga def ni tay mom contane nañ ci bu baax baax hmm. waaw amuñu seen fay tay hmm. wax dëgg na yàlla hmm. waaw buñ ko xoolee tamit am ñun ci préparation lamb lañ jóge ci prép ñun chaque jour dañuy pare. Hmm. billahi non chaque jour dañuy pare toujours dañuy pare. non ñun toujours dañuy pare chaque jour ñu ngi ci entraînement chaque jour ñu ngi ci entraînement. billahi gars yépp a ngi nii ñëpp dañ ci jàpp entraînement bi amul air. lu waral tour bi. non tafaatin xam nga rek tafaatin gaay yi ñoo ñoo ko indi. tuddee nga sa bopp nit ku bon. non bul teg loolu. ku bon nit ku soxor. <laughs> waaye gis nga. kooku bu xasee ba koor la nii bu la dugalee uppercut sa courant day coupé. loolu rek moom ma ci neex. loolu moom ma ci neex. non loolu moo ma ci neex. gan googu. waaw non loolu moo ma ci neex. moom nga tuddee sa bopp. waaw. mbaa noonu muy def di massacrer gars yi. déggoo ma de man lu ma deful ci lamb rek dama ko deful. billaay. Euh, bool bool. man fiisal laa rek fiisal mbaa daal. oui waaw. non tafatin dañoo bari mais tey boo defee tafatin bu ficelle loolu yow kese yaa ko moom ci làmb ji mais buñ ne tafatin numéro 2 bari nañu tafatin junior bari nañu bébé tafatin bari nañu mais tafatin bu ficelle loolu yow kese yaa ko moom waaw tafatin moom wax dëgg na yàlla bi man non ficelle mbaadaan laa dëkk waaw oui quartier bu ñuy wax foofu Touba nga si yàq Touba nga si yàq oui waaw fa laa dëkk waaw fa laa jóge waaw billaay mais mais fan nga commencé bëri non man man bi ma commencé bëri yàgg na yàggul xam nga rek ñun moom ay ndaw lañu dañoo foowe lamb mm. waaw looloo tax waaw dañ ko foowe billaay dañ ko foowe waaw ñun tamitam dañoo jóg rek gis suñu mag yi di bëre ñun tamitam ñu xool lamb boo xam ne maanaam lii nii mën nañ ko mën nañ ci am dara billaay ñu ci lamb waaw sama mag yëpp bëre nañu non ñoom ñoom laay ñoom laay laay la tudd waaw keneen ki ngóor ñoom gana billaay ñoo ñëpp bëre nañu ñëpp bëre nañu waaw ñooñu nga daan topp ñuy bëre ba finalement virus bi dugg la ñoom ñëpp dañoo bëre billaay ngay foofee bëre non waaw lamb moom lu ñu ci deful rek maanaam dafa nekkul lu ñu bëggul ci lamb billaay waa mbapat bi moom wax dëgg neel ñun ñun moom ñu ngi ciy def lu ne moom non ci àll bi rek oui ci àll ba non man kay mbapat naa fépp fu lamb nekk maa nga fa billaay non tournoi man moom amaguma saas jël tournoi billaay waaye moom man lamb moom dañ ci bëre bu ay bu bu sori ci. billaay waaye mosuñ ciy jëlagul tournoi. billaay mais tournoi combat nommé mbapat nommé ñaata combat nga bëri maa ngi combat nommé yi maa ngi maa ngi ciy doog a bëre premier combat. waaw Dakar fii nii maa ngi doog a. Fatou Balla Gaye moo la ko joxoon oui Fatou Balla est que du coach Kaana moo ko moo ko dox. waaw Kaana la kay. billaay Kaana la Kaana la ñooñ tamit amoo seen fay de. billaay amoo seen fay billaay. coach la ba pare mu ngi ci presse bi. billaay borom baax la. Hmm. billaay. Kaana du bàyyi. Kaana du baay moo ko se loolu moo ko se loolu. Balla Gaye booleel ak kii di. Euh, hmm. Olmondio ñoom dañ maa woon rek ne ma ñëwal dañ dañ laa bëggoon jox ko tey ma ñëw xam nga booy ne ma nañ la jox kii xam nga booy ñemewuñ ma ñu wax woowaat beneen booy jox ma ko booy boobu ñemewul mu waat beneen booy jox ma ko booy boobu ñemewul moom mu egg si gars yi ne ko jël kii mu mu ruux gars yi waxtaan seen biir rek ñu ne am ah, garaawul man mën naa ko gérer waaw. waaw moom Olmondio waaw mun na ko jël avancé waa combat bi taxaw waaw. combat bi non combat amul lu ñu ciy préparé. billaay comme li ma la wax sànq rek ak combat moom ñun chaque jour dañuy pare. waaw bu ñu ma joxoon combat combat ne ma suba suba ñëwal bëre damay ñëw bëre. waaw ñun amuñu lu ñuy xalaat ci lamb. non man toujours damay pare. non man toujours dañuy pare. financièrement financièrement booy nag xam nga dëkk ba nga jóge nag fi seen mbaa daan nga jógee. juddoo woo Dakar yara woo fi màggee fi euh, léegi euh, comme côté mobilisation bi nu muy demee ce jour combat aussi euh, financièrement est-ce que est-ce am nga ñu la jàppale. Hmm? man amoon naa ñu ma jàppale. wax dëgg ne yàlla gars yi moom bàyyi ñu ma. ay ñoom Etienne Etienne ñoom mbay ñoom Gana ñoom Abdou Faye ñoom Babou Diouf ñoom Seck waaw ñoom Ngor waaw gaa yëpp jàpp nañ ci billaay walaay même bay Fall lu mu ci lu mu def ci combat bi moo non Baye Fall lu mu def ci combat bi billaay walaay aw ma seen fay billaay aw ma seen fay ñi taxaw nii ngay gis nii ñi nga gis ñu taxaw nii billaay walaay aw ma seen fay. heure bu ne ñoo ma yee ma jógal ñu dem entraînement. mafia bi ay non booy xoolal ñoom Seex ñoom Jibi ñoom Demba. Hmm. ñoom Paap ñoom ñoom Biraan ñoom ñëpp ñoom ñëpp. wala mafia bi la non mafia ñoom ñëpp ay mbër lañu daanaka ni ma la ko mën a waxee. billaahi ñoom ñëpp ay ànd. billaahi ñoom ñoom ñëpp ni ngay gis nii heure bu nii ñoo ma yee ne ma jógal ñu dem entraînement xam nga ñoo may jox may lekk ay. man man daal li ma la ko mën a waaye manqué wu ma dara manqué wu ma dara dañ may taxawu billaahi aw ma seen fay billaahi billaahi ñun ñooy bokk ji kaf di ree di def lépp billaahi amiin amiin amiin amiin amiin amiin ñoom gëm nañ mbër mi foog ñu teg ci loxo mu avancé. billaahi ñoom ñoom fu ne fu may taxaw ñoo may taxaw foofu. non ñoom sax suur ñu ngi ci. billaahi aw ma seen fay ñii. wallaay asim yàlla rek moo leen mën a fay. barke alxuraan. billaahi mais préparation combat bi yan jafe-jafe am. non man moom aw ma ci yeneen jafe-jafe. billaahi man moom tous les jours damaa jàppoon ne maanaam ñun lu ñu ci jàpp dafa pare. pare woon nga pour jour ji bu at bi ne prime nga jëlee man loolu lañ ma waxoon ne ma kii nii man man gars yi ñoom ñëpp xam nañu man booy booy bi maanaam li may bëre ak moom ñoom. billaay wala arbitre bu soufflé booy buy déclassé may ma koy defaral. nga defaral booy dem sa yoon. non loolu loolu waxoon naa waxoon naa moom du combat. non man loolu laa jàpp man combat am am man combat combat am ci am non loolu du ndànk sax. Ah, loolu du ndànk sax non booy maa leen mën. non. wallaay loolu. boo jàppee ni yaa mën booy ñu jox benn booy bu tàng jër. nga dugg ci biir gi waat bi dina prix tegal la lu métti. booy bu ñu yaakaar ne moo gën a tàng nañ ma ko indi. ku gën a tàng. waaw nañ la ko indil nañ ma ko indi nañ ma ko indil. man déggoo ma de man su ma fi nekkul sax awaas bu ñëwee fii nii fekk ma fekk fi booy yi rek awaas bi du delloo du delluwaat. awaas bi du delluwaat. li mu wax booy bu gën a tàng nañ ma ko jox luy loolu. nañ ma ko jox. booy booy. nañ ma ko jox. xam nga pikin nga nekk. pikin laa nekk gis nga pikin. walaa jagumal nag coach yow defal ndànk rek yow yow yow moom say question say question la gis nga Pikine boo defee nii yaa ngi gis nga boo defee nii dem géejawaay boo defee nii dem jàmm gën boo defee nii nag dugg Grand yoof kon defal attention bu baax booy jàmm gën yi booy géejawaay booy parcelles yi booy Grand Yoff yi ah non ils sont très dangereux Tapha Tine non ñun ñun ragaluñu loolu ñun fu ñu jëm ragaluñu foofu fi nga jëm ragaloo ko non ragaluma ko ragaluma ko de. sa morom biir géew lijjanti woo ci kenn. non amu ñun amuñu lu ñuy lu ñuy sóoraale ci lambu ñun amuñu loolu xamuñu loolu sax. waaw <laughs> xamuñu loolu. billaahi waaw ñun moom lambu lambu dafa nekk suñu deret. billaahi suñu deret la. waaw ku jóg ne man séeréer laa rek. wala azim lam deretu lamb mooy dox sa sa yaram même boo bëree boo bëreewul deretu lamb mooy dox sa yaram waaw. billaay da ci am wal bu baax a baax. bu dégg sax bu bëri. Euh, Baye Fall maa ngi lay ziar. maa ngi lay doole ziar. sant yàlla wér. Euh, avant tout looy nuyoo dèjà ñu waaw man tamit maa ngi lay nuyu. yow mii nga xam ne danga ngaa fu sori. du nuy Pikine mbooloo. Mhm, man man lépp lu ma am rek père Baba Diallo la. maa ngi koy remercier du ko nuyu. à passage waaw. Mhm. njaga sunu. momo wa, wa, waaw don moo suñu tête de file combat bi tamit jublu nii ñu ngi si xaru nag kan ah, maanaam Mamadi Ndiaye la mais nag mais nag yàlla baax na bu soobee yàlla ah, ji nga ji nga Mamadi man du ma du ma wax dara de xam nga lan laay wax dal sama xel dal na sama mbër oh. ji nga xoolal ji nga boson bu ko jàppee da xoolal da curuk luy loolu. waa non loolu. waa curku kii moo kii moo def caranka. ah kii moo kii parce que gisoo vite fait la. def waaw. Baye Fall Baye Fall barka alaaju Fallu di nga fi ñëwaat ma ne barka alaaju Fallu dama ne la dëggoo lu ma la ne d'accord naa moom papam champion la. moom champion la moom champion la. mais mu ngi dajal ndaanaan. waay waay ma ne wi ma wi ma wi ma. ji nga ji nga ji nga caat. waaw caat combat bii la nag Sénégal ñëpp nag ñuy sumi sapo ma soloolaat leen seen si kii seen yére waaw hmm. bu soobee yàlla waaw bu soobee yàlla. caatu Boston. billaahi yow coach yow gëm nga ne caatu Boston am na bëre bu daan ah, est am na bëre bu daan Mamadi Mamadi ma ne barki borom Touba Mbakke kooku ñoo koy entraîné kooku lu ñu dugg si bopp bi duñ ko wax kenn. sama mbër bi dafa dara si lamb ji. dama ne barki borom. Mamadi Mamadi ngay bëreel. dama koy xoolal dama koy daan nga ñëwaat fii. Mamadi Ndiaye dama koy daan dama ne la kii mooy curuku kii mooy caranka waaw waaw caatu boson yow bula la Mamadi tàncee ba bàyyi la yow booy yow man tàncee Mamadi dina xam ne xoolal curuku ñëw na ma eh, caatu boson am bu daan ma ne ma bu ma ñëwee am na bëre bu ko waaye waaye dafa am ay ay xoolal ay bibliothèque la am dama ne la ah, waaw mais kam moo dajal kii eh, kii eh, <laughs> waa jeex na waa kan la jur <laughs> waa déggoo ñu ne ko caat li baayam def moom defu ko li baayam def moom defu ko li Pape Diop Boston def jaga cam caat Boston deful xaaju xaaju xaajaa bi bokkul xaar moo la booy bi bosam dañ ko nëbbu na ko tey dix dix victoire kese dix victoire benn defet waa la la xoolal ñu xoolal ñu mu daan oh, ma ne ma ne waa depuis premier combat man man de moom laa suuloo kii laay naanee jëmm jiita mu toog ne moom rek laa naanee oh, alaaji fa alaaji Fallu Mbakke dafa toj mbabat ma ne bu ma tàncee Mamadi nga xam ne lépp dëgg la ma ne wax baaxul ba Mamadi ne ciix tànk bi ma ne ay Mamadi Mamadi bu mu laal tànk ja bu mu laal yaram ciix tànk mu laal yaramam waaw ñun lu ñuy liggéey xam nañ ko ñun lu ñuy liggéey xam nañ ko waaw combat bi bu weer bi deewee la waaw incha allah rabbi waaw waaw ah déedéet moom mooy dee ma ne wallahi fii laa indi drapeau bi dama lay wax xoolal nga ñëw seet si ma man kay lu leer nag laa la wax ma da kay daan si kattanu yàlla ma ne nga ñëw seet si ma loolu danañ ci ñëwaat après loolu dinaa ñëwaat lii kii waaw Tapha Tine ginnaaw yàlla ak yonent bi moom manqué sant du sant kii tamu nag sama ginnaaw kii mooy léppam jëmm ji eh, ah, waaw kii waaw kii mooy kii kii kii kii après dinaa la wax mbiram ah, mais lépp nag dans benn grand bu fi nekk dañ koy wax ngoma jonn moo tax sañ ñi ñëpp ma xam leen mais avant balaa may xam kii jëmm ji laa ñëkk xam moo teel loxoom moom xam na man xam naa si biir néegam mu ne ma kii sama rakk la Etienne man ko jërëjëf ñuy dem adduna ji nga ñuy dem man ah, naa lu baax rek la ñi kaf du ree ba boy bi ñew ma gis mi entraînement man maa gis mom, man ma mako wol mu ni ma ko yow man buma ma do ñew ma yor la te yalla rek tax xam na ne xamoo góoma mais buñu bis kan nga xam mu ma mu ne yow lo nga gis mu ne waaw moo tam mu jox ma bopam mais ki dafa gul dara dara dara dara dara ci lamb combat bi laaj ko man maa ko waajal yo ko man gaawuma nak du yobbu mbeur naa la wax de xam nga ban année laa gëj a dem stade 98. 1998 18 98 laa gëj a dem stade. waaw laa gëj a dem stade mais kii itam moom moo yóbbaat stade. ku mu dajal ma xam naa kii moo ko mun. waaw dama ko ne xool na ko vite fait rek ñu ñibbi. waaw man doom soose laa. nii nii Tapha Tine mi pare nga pour dugal ko ci arène bi mu dem dóorante. barke Alaaji Fallu Mbakke. barke Alaaji Fàllu Mbàkke yàlla bu ma gisante rasulullaay kii maanaam moom ba France ba fu muy entraînement kii déggoo lu ma kii maa koy lépp kii kii defagul dara si làmb ji xam nga la bugg xam nga la laa bugg xoola kaana mu ngi may dëgg xoola kaana na ma dëgg ngir jëm rasulullaay xoolal weer koor bu jàllee nañ ko nañ ko jox ñetti avance après ñu seet ma ñetti avance booy bu wóolu dooleem écurie Balla Gaye écurie Modou Lo xoolal écurie Yaraax ma ne Lamsaar ak kii eh, Grand Yoff ah, ma dem eh, Medina ku ñeme ku may dégg man man baay Fall curug carak buñ ko sàcc na buñ ko piraat kooku man seul baay Fall ma maa ko génne gum man maa xam lu tama génne ko damaa bugg a booy bii te si kattanu yàlla booy bi dina sori si làmb ji. di di ah, yaa yey ree del ree rek yow da xamul li lay xaar nee nga da ngaa pare pour dóorante ji Baye Fall nee na daa pare pour nga dóorante ji léegi nag dama bëggoon nga citer ma say potentiels adversaires ñan nga war a bëreel instant bi ne ma diw ak diw ak diw samay adversaire lañu ñëw leen ñu bëri non ñun moom comme li ma la wax sànq rek ñun moom amuñu ku ñuy ku ñuy sóoraale ci làmb hmm. tey tey tey buñ ma woon fekk ma may nelaw tamitam ne ma ñëw jox nañ la diw hmm. loolu duma ci mais xam nga xale yi xam nga mbër yi. man xam nga booy yi nga tollool catégorie. man li jant boo yooyu man bëggatuma leen boo yooyu mënu mënuñ ci man dara. garant yi nañ ma jël. garant yi waaw ñan ñooy garant comme ni ma la ko mën a waxee rek comme booy xam nga ne booy ndaw yi moom ñemewuñ maa jël. gars yi nañ ma jël. booy ndaw yi ñemewuñ laa jël. non ñemewuñ maa jël. man dama lay limal ay booy yoo xam ne koo ci seen gauche jëlal droite. boo yoo xam bu leen dal bu leen jege boo yoo xam bon nañu soxor nañu mën nañu bëre mën nañu xeex ño xam ne eh, geneen ah, Etienne yow ku bari wax nga yow nopil nopil bama laaj la wa wa defal dank rek yow sa link da nga japp ne champion la ki du champion ki boy bu ndaw la defagul dara wa wa wa maa ngi ñëw maa gis nga boy yi ma lay limal ni ko ci sen gauche jëlal droite boo yooyu baxuñu ils sont pas gentils du tout xam nga bombal bombal bombal yaa itay dada Grand Médine la dëkk. waaye man man nga wax bombal euh, euh, coach waxuma ak yow de. Oh, bombal du dërëm. bu ma jël avance tey. maa ngi ñëw maa ngi ñëw wa maa ngi ñëw damay lim damay lim man dama lay conseil boo ma déggalee nga topp samay conseil boo ma déggalul nga dem def lu la neex lu la ci fekk nag nga xam ni nga géré ko man moom damaa xam booy léegi dama lay tere ñii ma lay limal bu leen daal bu leen jege bombal xam nga jéen bu déggoo jéen bu déggoo yandaa numéro 2 bu bawal yandaa 2 bu bawal yaa un boy bu tudd euh, euh, caatu jolof numéro 2 am na beneen mbër bu tudd amaja numéro 2 ja numéro 2 booy yi koo ci seen gauche jëlal droite parce que booy yi ils sont très très très très très dangereux man maa la ko noo non booy yi nga njëkk tudd noonu xaw ma ay bombal bombal bombal booy boobu boo boo ko wanoon sama photo rek ne ko tey dama lay jox tabaat du nagu loolu maa ko assuré sama bopp boo yi nga tudd noonu yëpp ko koo ci woon sama photo ne ko kii laa lay jox de delloo avance bi maa la ko wax wallaay maa la ko wax te ku ci ñeme na jël avance bi ku ci ñeme waaw waaw euh, bombal loolu loolu loolu ci yoon bi la bokk rek dañ ko jàll <laughs> ñun waxatuma la ay bombal le hmm. billaay wallaay ñuy raw bombal laa bëgg bu Siteu waaye buus itam boo yëng boo yi wax nii ñu boo yooyu yëpp ngay teg noonu boo yi ngay wax noonu. kooku du dërëm. alaaju fallu na ma jël. waaw. te lii mën na daal barki Serigne Touba Mbacke. waaye ku dul ku dul buur Siteu laa la wax ni moom. tafaatin nii mën na daan buur ma ne ku dul buur Siteu mun na ko daan. ñëwaat ci yow mën nga daan buur waaye loolu waxatuñ ko. buur Siteu buñ jàkkaarloo moom xam na ne maa maa mën ko ko mën. waaw. nit ku bon dugg si ne. Mm, baax na. am na nit ku bon ku dugg ah, kaana kaana ngi noonu. kaana du bàyyi. wax ko sa gars yi mi ngi noonu moom la ñu jëw léegi léegi. kii kii nit ku bon la kii moom kii moom. ah yi daay Mambala si ñor. kii mooy kii mooy Mambala si ñor. nit bu baax ngi noonu. non dama kii am ma fee billaahi amu ma fayam wallaahi asim maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax billaahi waaw hmm. billaahi noo kii lu mu ma defal mënuma ko wax non lu bari dafa am lu bari lu mu def ci sama live billaahi kii nii amu ma fayam fen billaay walaay lépp moo ma koy defal lépp moo ma koy defal kii am ma fay am yàlla rek moo ko mën a fay billaahi kaana maa lay ziar eh, delloo ziar Seydina naa si am jàmm iko sa ginnaaw jëw bu rafet nag ah, booy bi nee na mënulaa fay kaana moo may taxaw kaana moo may entraîné kaana moo may lijjantil combat nga dem bëri daal nan ngay dundee avant tout waxaguma ci boobu mais say poulain écurie Pikine mbooloo waaw écurie Pikine mbooloo Seydina ginnaaw bu ma nuyoo say internet di la nuyu bu baax yow di la ziar bu baax a baax di voilà gis nga di nuyu waa Pikine mbooloo bi yëpp ñoom ñoo baax rek ah mm-hmm. li ñuy li ñuy wax lépp ci ñoom la nekk parce que du mag bu ma leen mag wala ëpp leen xam-xam wala dara ñoom ñoo ma des sa baax xam nga fekk ma ci écrit bi ma dalal leen ñu jiital ma jox ma cër boo xam ne nii sax man yelloo ma ko parce que père Baba Diallo mi ngi fi mais ñoom lépp lu ñuy def duñ dem si père ci man la ñuy ñëw kaana lan la ñuy def bu ñu dawee ba pare lan la ñuy def tey dañuy contact wala nangam kon mën naa wax li ñu wax lépp ci ñoom la nekk quoi parce que nit ku baax mooy xool ci nit mbaax ba gis ko ba di ko seede voilà kon baax boobu ñuy wax ñoom ñoom si ñoom la nekk quoi ku baax mu mën a seedal nit lu baax voilà kon damay wax ne li ñu wax lépp ci man hmm. ci ñoom la nekk parce que mënoon na ñëw fii comme ni ko ñëpp di defee def ma concurrent kii man seen morom laa magewu ma leen wala ma ëpp leen expérience boo xam ne nii mën naa def si ñoom dara lu leen jariñ mun naa wax dañ fi nekk suñu père mais comme ni ma ko waxee sànq bu ñëwee lépp man la ñuy laaj lu ñuy def xam nga mooy loolu noonu xam nga rek yaa ma gën a xam. coach si équipe bu mag bu mel ne yomb na yombul. yombul waaw mais comme ni ñuy wax sànq lañ bu ñu booloo wat sax moo ci nekk équipe bi li muy ndaw ndaw dañu booloo. mbooloo mu booloo lañ wax mais mbooloo mu booloowul taxul ñu am doole. mais Pikine mbooloo liy force bi mbooloo mi tuuti na mais dañu am doole parce que ñun ñi voilà ñun ñëpp dañu def suñu bopp benn boo ñu fekkee fii da nga naan ñii ñoo juddoondoo ñoo yeroondoo ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que loolu mooy force Pikine mbooloo. instant yii nii Ndiaga am na combat moom ak Mamadi Ndiaye. nee naa soose Mamadi moo man ñaari Ndiaga Thiam caatu Boston Mamadi du moroomam da koo bëre ëpp ko doole gën koo siiw ëpp ko supporter et tout et tout amul sens ci Mamadi man maa wax loolu. non amul dara amul dara lu ko ëpp. xam nga lu mu ko jiitu ko ci làmb ëpp ko tuur. waaw yéen yéen bàyyi leen booy bi ma onze onze combats. waaw dix victoire benn défaite dix victoire benn hmm. ban moroomam moo koy def fii yow xam nga bu baax yaa ngi ci milieu bi. xam nga ne Ndiaga Thiam bokk na ci booy gën a naqaree utal adversaire bu ñu waxantee dëgg. waaw mais ku xamul dara te ñemewuñ la kooku sant yàlla kon boo xamee dara toj fi. Hmm. voilà ku xamul dara te gars yi nangu ñu laa jël. Hmm. kon boo xamee dara toj fi. voilà xale la mi ngi rampé xamagul dara ci kanam Mamady Ndiaye. parce que Mamady moo ko jiitu ci làmb comme ni nga ko waxee moo ko li mu def ci làmb bëre simple bi dafa gu ko kon donc Mamady magam la mun naa wax Mamady da koo may sens mais may sens bi tamit da ko mérito parce que dafa liggéey fii bala maa gëm man gëwma ci làmb may sens parce que fii ku fi may sens nañ nañ bëre yaaw jaal waaw mais fii ku fi prouvéwul ku ñu jël da ngaa mérito ñu jël la parce que ku fi deful dara kenn du la jël gars yi mayu ñu ndaw yi il faut ñu gëm seen bopp xam ne dañoo liggéey ba war a dëkk ki ñu war a dëkk ñëwal ñu bëre amul maye fi maye fii fii ku a ku bëreeg yow rek dafa war a bëreeg yow. am na am bu daan bu ko raw. am bu raw te la premier mai ngay xam Ndiaga Thiam ndax bëre bu bu raw bu daan Mamadi mi ngi si moom wala déet. li maa la ko wax. kon voilà kon. kon jeex na kon am yow mun naa wax yaa jiitu Ndiaga Thiam ci écrit bi yow ñi xam làmb yaa ko dund làmb boobu site internet xewut boobu ay whatsapp amul nga nekk ci milieu bi. kon Ndiaga Thiam sa kanam la doore bi ngay nekk ci làmb moom duggagul ci làmb jamonoy ñoom cek ñoom tonnerre ñoom booy nga doon teew fii di di photo fii mbër mu nekk Sénégal presque bu ñu nekkee stade yow booy yu bëri gars yow la ñuy laaj man sama kanam damay taxaw yow la ñuy laaj kon milieu bi fi mu toll nii làmb moo nekk loo xam ne nii sabar bu tas la kenn ku nekke pooj bi ngay génne fi ne làmb dafa neex a waxee parce que dafa xew mais ba muy miti dëgg ñu koy xasal nekk ci huut bi yow da nga ci rampe sa mérite ci làmb sax wax egg goo fi gars yi joxaguñ la cër boobu. loolu beneen waxtaan la Pikine mbooloo laa wax. sa lii seen booy bii ngeen jël gonflé ko ne day doon roi des arènes waxu ma ci kii de waxaguma ci Mame Balla de caatu caatu Boston laay wax yenn instant bi dañu jàpp ne booy bi day doon roi des arènes. mais fi mu jaar moo baaxul parce que gis nga Mamadi ma jox la benn benn conseil Mamadi bés bu ne ciix sa tànk Mamadi Mamadi Ndiaye bu ne ciix sa tànk. oh laajal mbër yi fa jaar. ban tànk lay jël. tànk yi mu doon jël ak bu non tànk bi mu doon jël ak bu njëkk a caam. bu ko jëlee nga gis lu garaaw. lu njëkk a lu muy def lu muy def. daan ko jëlee bu rëy. Hmm. déggoo li ma la wax doon bañ njëkk a caam yëpp si combat bi lañ koy nangule. est que xam nga ne buñ ne rapidité d' exécution ci njëkk a caam caatu Boston la dama koy kaañoo nag man lu ma neex laa koy wax parce que sama jantal booy la daan na mbër ci 7 secondes sama kanam. daan na mbër ci 4 secondes sama kanam daan na mbër ci 3 secondes 3 secondes digganteem ak melax fils de Ali 3 secondes prix tell làmb ji jeex na mook moo di cargo 7 secondes 4 secondes bi moo kan ci la sax fàtte naa fàtte naa fàtte naa fils de Ali la daan ci 3 secondes yaa ngi may dégg am na keneen ku mu daan ci 4 secondes déggoo li ma la wax njaga caam mhm. làmb xamaguñ ko làmb xamaguñ ko xam nga làmb lu ñu xam mhm. mbooloo public. public ak mbër du benn. am na ñoo xam ne dañuy gunge gaay rek ak mbooloo mi leen topp rek mais ci kanam la mbër yi di ñëw jël seen place ci làmb. de gré ou billaahi wallaahi te Ndiaga Thiam daa bokk ci mbër yi. gëm nga ni gëm nga ni dana àgg au sommet Ndiaga Thiam caatu Boston gëm nga ni il ira au sommet. bu baax. barki Seydina Mohamed su ma yoroon ay milliards naa ko investir ci moom. ci làmb. non ci beure kese bu yàlla ñëwul waxuma ndok de ci doole ci doole ci fit ci lepp complet ma car sha allah dama ko wolu parce que bi mi ñew fi sama kanam man ay magam la doon andal ñom Tidiane voilà ñom Ameda mhm. ñoñ sax fi la fekk nañ ma may and ak Tidiane mhm. man presse bi écrit bi légui ma def fi 20 ans ça fait 18 ans 2006 ba légui ma ay fi bobu jaga ci am boy la voilà mais dama ne la ci kanam la xam kan mooy ci am lam li essence yi moo bari coow gaay yi fi ñuy natt mbër mooy ci public. Mhm. te loolu ak mbër du benn. non gis nañ fi yikini mhm. yikini man sama kanam la commencé bëre bi muy bëree kàdd ji. public am demewul woon noonu. gis nga ko. lamba ngi noonu. gis nga borom yoon yu gaaw yëpp mhm. après bu def demee dañuy stocké. lu beneen débat la kii kii waa kii Mame Balla numéro 2 <laughs> ndaanaa na ngi nii xoolal Pikine comme ni séeréer tegee ci loxo ci bëre simple noonu la pikin tegee làmb fii ci fii ci Ndakaaru fii bu ñuy wax làmb Pikine la. arène nationale bi de mi ngi fi koo leen bëreel yéen a ko dalal koo leen bëreel à déggoo li ma la bu dul faas écrit boo fi dégg ci gox yi nii élément bu jóge Pikine moo ko sos ba ci Mor Fadam Géejawaay Pikine la suñu papa Mor Fadam papa jóob mii moo ko jàngal bëre mu jóge fa doog a dem Mermoz lu yàgg laa lay wax. Mermoz ci Kamal Salame. ci Kamal mook Xaadim Ndiaye numéro un. mook mook Forman mook Ngay Loum. voilà. jóge fa dem Njàmbur. ba ay école de li doog a ñëw. dama ne la fii ba parcelle fii la ñu jógee làmb fii la ñu jàngee ñëw dem fële. booy moo yóbbu làmb parcelle moo jóge Pikine dem dëkki Cambérène Cambérène 2 Pikine mbooloo fii fii mbooloo moo jur ikiri doon sumeku fii la doon contacté laaj dal Baye Fall curug carag mii Pikine yëpp ikiri pikin moo amoon Tyson moo njëkk génn Pikine formé bul faale mais Pikine moo amoon Pikine yëpp benn écrit la woon Tyson moo njëkk génn formé bul faale après yenn affaires yi am Pikine mbooloo génn ñu ne écrit faalaay balle euh, kaana kaana kaana yow yow yow yow yow damay damay dagg sa temps de parole xam nga lu tax parce que yow dañu war a waxtaan yow monument nga Pikine de un deuxièmement tey en bawol bawol pur sang tey nañu couché fii rek ci booy bi parce que yow suñu waxtaan day yàgg yaw dañu war a def ay plateau yu plateau yu plateau yoo xam ne dañuy toog ngay génne li nekk sa xel di ko waxtaane ci làmb rek dèjà da nga cee xam lu bari man yaa ma koy jiiñ mais dama la koy delloo am na loo may jiiñ loo xam ne yow dama la koy delloo parce que man tamit mësuma bëri gaa bi may am 18 ans lañ ma fal président écurie maa ngi commencé yàgg ci làmb d'accord mais man mësuma bëre mais yow da nga bëre ba pare jóge ci nekk coach nekk ci écurie bi gën a mag Pikine yii mooy écurie maire Pikine kii mooy yaay ji moo jur ñëpp yaa may dégg nga am fi 18 ans kon yow tu as des tu as valoir mais loolu du du du du émission trois minutes wala quatre minutes non non tey da ngay ñëw pour coach pour coacher gars yi dañ koy waajalaat ay yeneen ak yeneen ak yeneen mais lii lii ma ñëw seet si kii dèjà kii li mu fi def. dafa at li mu fi def. Mambala. Ah. mais Pikine fii amu amuñu frontière yow. daa am combat daa am combat. Mambala. non amagul. man daa am combat sax di ko waaj. non mais ah. ñi ñëpp dañu ñëw. pour jàppale si ah. Ndiaga Thiam. moo leen fi indi. waaw moom poulain wu poulain kii la. Euh, sama sama copain Abdou Abdou Ndiaye nekk école Pape Diop Boston boo génnee fii yaa école école sama kanam lañ ko formé ñi ko formé fii lañ jógee ñoom Baba Wade ay ay ay ñoom Cek ñoom Tere Cax ñoom Ndiaye Lambaay voilà ñoom ñoo formé fii lañ jógee bi ñuy dem fii lañ ma bàyyi voilà waaw kii Tafatine mu nekk booy bu séré di ndaanaan nag yàggul si écrit bi mais li tax ma ko combat gis man entraînement laa gëm sérieux laa gëm sérieux ku entraîné waaw dama ko gis si moom am na boo yu mu fi fekk xëy na mun naa am mun naa am possibilité utal leen combat mais gisuma ci ñoom benn sérieux gisuma ci ñoom benn bëgg làmb ma gis ko ci moom yàggul dara looloo tax ma am fitu bëreloo ko léegi ko da nga utal komba nommé mbapat nommé mënoon nga ñëw rek yóbbu ko arène mu dem dóorante ji mais da nga ko yóbbu mbapat nommé dafa mel ni da nga ko doon testé xool ba xam escalier bi dina yéeg premier euh, marche bi deuxième bi après nga avancé ak moom moo tax nga utal ko mbapat nommé mu dem bëre ji instant bi est-ce que est am nga satisfaction waaw am naa satisfaction totale ci combat parce que la indaale complexé wul bi mu duggee ci làmb ji janna xew non complexé wul parce ñëw si écrit bi su ma juumul mi ngi doon compétir ci àll bi kon xëy na dafa ñëwul woon Dakar xëy na fële say mbokk ngay nekk say mbokki séeréer bokkul ak fii fii beneen beneen niveau la quoi voilà beneen level la wa non jànnexewul xanaa doo a bëre bi mais mii na bëre simple liñ naan xaw ma lan ku ko yóbbu géejaa ko ñibbilee mais noon la mais séeréer boo ko dugalee ci bëre simple kooku mooy loolu. instant bi pare nga pour yóbbu ko mu door a tëj. bu paree. waaw mais bëgg bëggaat nañ ko testé mu confirmer ci bëre simple bi deuxième combat troisième beneen combat mbapat kon instant bi balaa déwén sax. fin de saison waa mën nga ko bëree parce que maa ngi ko bëggoon a dugal si combat quinze 15 bi. 15 simple bi deuxième journée bi. Euh, production. jeunesse Amar Sali waaw. voilà foofu laa ko bëggoon a dugal. demoon na pour xooli adversaire mais xam nga booy dañuy dawante. bëre simple bi gars yi sama mbokk olof yi sawaruñ ci bëre bëre bëre simple bi ak séeréer yi. Mhm. Mhm. loolu moo tax booy di ko daw. Mhm. mais bëggoon naa ko si mu bëree la 15 bi après su ci jógee ñu xool nu ñuy nu ñuy def bëree ko ci bëree dóor bi fin saison mu am benn combat muy 3 trois combats ci saison bi. kon Kaana yow bu ma la gisee da ngay préférer créer un produit fu dara nekkul nga créer jóg ak moom 1 2 3 4 5 6 jëm jëm ca kaw. parce que sport carrière la amul yàkkamte amul jëkkante. du du ñaari voilà du course du course voilà course de njëkkante njëkkante bi amul solo da ngay rampe bu boo ëgsee tay ci tableau bi nangu mais da ngay gis fii booy booy am départ gaynde arrivé ñaari combat ñetti combat après ñu tëbal leen tuuti da nga naan ñii du ñoom laa doon gis ci petit combat yi voilà yàkkamti la lamb carrière la kii dese na vingt ans ci kanam wala vingt cinq ans ci kanam xale la lu muy yàkkamti. booy nag léegi booy nag léegi ñi ci ëpp dañuy bëgg léegi léegi léegi mu sotti léegi léegi. yoonu jooni mais loo ci gis. dañ dañuy yuréet yuréet pëng rek dañuy dem jël affaire yoo xam ne nii. waaw lu ci bokkul. voilà seen yaram attan na ko parce que yax bu nekk dafa am lu mu attan am na xol bu nekk voilà ñu si bëri loolee la la leen di gaare yàkkamti maas. te li ñu naan dijji dijji dëgër dëgër ko gën tey boo gisee ki mu doon bëreel moom premier combat da naan moom su ko jàppee mu jeex. te ba te ba ñu roofoowee gis nañu. non parce que doole doole ci sidit lay nekk du du du maas. Mhm. Mhm. doole ci sidit la ci yàq la. mais du yàpp yaram nii nii nii non non man gëw ma loolu man miskil laa gëm liggéey ba feere gëw voilà man gëw ma saayis nit da ngay nekk foo nekk ñu naan kii su ma ko jàppee mu dee mais bu ne rinkum voilà ñu xam ne mooy loolu. kon daal nañu xaar Tapha Tine ci benn level bi bu liggéeyee bu nangoo topp ci ginnaaw ay coach am. moom nangu na ba pare. nangu na waaw joxe na cër nangu na ba pare. nañu ñaan yàlla rek. mu lafa ñu doxal dem doxal dem yow yow yow suñu waxtaan du yomb <laughs> jàmm ci yow moo frère. je le xam naa ko xam naa ko je le na ñoom Malal Ndiaye. te noonu la fa demee. boobu téléphone buy photo sax amul. <laughs> noonu lafa fa demee assi assi assi assi assi assi Tafatine mais Tafatine nag lii nag lii nag rafet na de. ñëw ci écurie say say coach say grand frère ñëpp seede la lu rafet. billaay noo ñoom ñoo baax rek ma topp sama mag rek ñoom ñooy sama lépp billaay. cer bu ne non noonu la non noon la àdduna amul solo billaay da ngay war a da war a topp ñi nga war a topp rek même koo gis jox ko cër bi nga ko war a jox rek billaay ñun noonu la ñuy dundee billaay ñun noonu la ñuy dundee ku ñu gis jox ko cër bu ñu ko war a jox amul mag amul ndaw amul xel amul amul ji làmb ji wëngal këpp ban moo fi dàq fii moom fii bari nañ fii de kan nga <laughs> man Tafatine. Tafatine waaw sa idole. Hmm. waaw moo dàq bëri ci làmb ji. waaw non moom laa ko mën a jox. waaw dàq bëri ci làmb bi làmb ji wërngal këpp moo fi dàq xeex. Tafatine. Tafatine nga koy joxaat. waaw moo dàq xeex ci làmb ji. loo man li ma moom damaa gis ci li ñuy wër ci mbor. li ñuy wër ci waaw moom laa moom laa ci gis. moo dàq xeex ci moom lu ñuy wër ci mbor lépp muy ci moom. question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a ñeme non bari nañ waaye Tapha moom ñeme na entraînement trop. a ñeme bari nañ daal. kan nga koy jox <laughs> kan nga koy jox. bàyyi ma jox ko Tapha Tine rek. waaw a ci làmb ji. waaw question mbër moo fi ëpp fit. Tapha Tine. xam nga maanaam nit ki moom lu ne ci moom moom ci moom loolu rek nga ko mën a wax. Tapha Tine moo ëpp fit ci làmb ji. waaw question suivante bi làmb ji këpp ban mbër moo fi dàq fecc waaye ma jox ko Siteu rek. <laughs> waaw <laughs> waaw yàlla bi <laughs> waaw. non Siteu jàmbaar la. billaay te suñu mbokk la. waaw dëretu séeréer mooy dox seen yaram. non gis nga moom loolu ci moom la nekk. billaay. tey ci question réponse lamb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a yaru ban mbër nga gën a ci am yar. non mbër yi fi yaru moom ah bari na ñu de. oui Siteu la waaw waaw non yaru na moom. billaay. ba tey ci question réponse nag làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a réew nag mbër bi a réew ci làmb ji. non mbër bu gën a réew ci làmb ji. ah non non kooku moom xamuma ko noo amul amul non amul mbër bu réew moom amul ci làmb ji xam nga rek non non garaawul garaawul ba après dinaa xool benn tukulóor rek ma jox ko ko non garaawul non garaawul non du man <laughs> bàyyi ma jox la ko gon <laughs> waaw non <laughs> ah reporter ak mbor kay benn lañu ah, ah waaw reporter ak mbor benn lañu de non noonu la non bàyyi mu bàyyi mu set gon ah garaawul non garaawul garaawul bàyyi bàyyi bàyyi kan non bombol non bàyyi ma jox ko gon bu Siteu waaw. bu Siteu waaw. waaw mu jëlal yaa moom loolu. dafa ci nee yaa gën a réew ci làmb ji. <laughs> waaye ma jox ko ko waaw. Ah. mën a bëre am fit ñeme entraînement am gàllaaj ban moo ci ëpp solo. non lamb moom maanaam ay galaaj ak yooyu yëpp ñun gëmuñu loolu. ban moo ci ëpp solo bëre fit entraînement galaaj ban moo ëpp solo. entraînement ak fit bi moo ci ëpp solo. ban moo ci ëpp solo. entraînement moo ci ëpp solo waaw waaw waaw kon yow boo gisee mbër bu ñemee entraînement da nga koy naw non dama koy naw ndax dama xam ne ay ay fitteg yooyu moom yooyu lépp xanaa moom góor moom bu ñu waxee góor la rek jeex na waaw waaw léegi yow nga war a bëri ji sa jour combat ñu woo la téléphone ne la dafa am règlement bu bees bu wàcc ñu ne la yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeent yi mooy dem làmb ja benn bi fi nga koy bàyyi wala doo bëre ban ngay bàyyi bëre bi fit bi entraînement bi gàllaaj ban ngay bàyyi. bëre bi ak fit bi ak entraînement bi. ak gàllaaj bi koy bàyyi wala doo bëri. benn fi. waaw wala ah. doo bi fit bi entraînement ban ngay bàyyi. <laughs> ban ngay bàyyi. fit bi laa yóbbu. non ban ngay bàyyi ban ngay bàyyi benn ngay bàyyi bëre bi fit bi bi gàllaaj ban ngay bàyyi. non ma fi bi rek ndax xam naa ne. nga yóbbu bëre bi fit bi ak gàllaaj gi. waaw nga bàyyi entraînement bi. ma bàyyi entraînement bi. Hmm. waaw bëri bi ak ak gàllaaj nga yóbbu waaw lu tax mënu woon bàyyi bëri bi non mënu ma koo bàyyi non dama koo mënul rek lu tax bàyyi woo ko non dama koo mënut a bàyyi lu tax bàyyi woo fit bi non ma koo bàyyi non dara waaw ba na jour boobu daal entraînement bi ngay bàyyi waaw d'accord euh, ban combat moo la gën a marqué ci làmb bi nga dalee seetaan làmb ba tey ban combat moo la gën a marqué ci làmb non combat yi moom wax dëgg neex la moom combat yëpp laa la ko mën a wax bi la gën a marqué ci làmb boo xam ne da nga ko seetaan mu mhm. a combat boobu moo xanaa combat combat Tafatine kii rek. combat Tafatine Balla Gaye rek. Balla Gaye Tafatine. waaw 2013 ba. waaw boobu la a marqué ci làmb. billaay combat boobu daf ma métti. Balla Gaye lu mu defoon sama waa ji dafa métti trop. billaay daf maa métti woon trop. billaahi. la gën a marqué ci waaw. siyaar nañ la bu baax a baax kay. tur bi nan la Mbacke. Mbacke Seras. avant maa ngi nuyu gars yi ñu may seetaan yëpp ah, di nuyu seen auditeurs yeeg amateurs yeeg ñëpp maa leen di siyaar bu baax a baax. yow di la bu baax a baax di siyaar suma rax bi tafaati di ko bëgg bu baax a baax waaw lu yàgg dëgg la si yu gaan nga dafa yàgg ko yow Pikine mbooloo dañ fee bokk. waaw yow bi nga fi ñëw dafa fekk ñu nekk ay xale yu ndaw nekk ay parentel ñu nekk ak yow nag ba léegi mu ngi rafet nag musul ñaaw waaw loolu man loolu moo ma gën a marqué si yow mooy fu ñu dajee si mbedd bi da ngay xam ni kii ba ma koy xam lu ndaw la te loolu musul dañ bilaahi di la bëggee bu baax a baax di bëggee ñëpp ñuy seetaan nag waaw pikin mbooloo ikiri la boo xam ne moo jur écurie bu nekk Pikine fii hmm. écurie bii moo la jur waaw hmm, moo jur écurie yëpp ci Pikine boo déggoon ñu naan deux cent pour cent wala cent pour cent fii la waroon départ dox dugg ci écurie yëpp waaw ndax ñun dañoo ñëw nekk ay xale yu ndaw dëkk Pikine nag xam Pikine xam li nekk pikin ci làmb ci côté bépp nag ci côté mbër yi ci côté ñi ànd ak mbër yi ci côté supporters yi ci côté amateurs yi lépp lañu xam Pikine waaw noonu la demee est-ce que est euh, nekk bokk ci staff écurie bu mag écurie bu toll ni Pikine mbooloo est que yomb non yomb na yombul waaw yombu na yombul quoi waaw yomb na yombul xamul tax nga bokk si écurie bu saf ndax écurie bi ay mag ñoo ko ñoo ko ñoo ko sañce ku mel ni Pape Père Pape Diop suñu bosan ñu ngi koy ñaan yàlla may ko wér ak tawféex ak Père Pala Baawa Diallo ay ñoom Père Bourkhane ay ñoom Dégol ñëpp fii lañ nekkoon ak ñun mais nag maanaam dañ naan su àddu loo xam ne bu juree ba sotti ku nekk day dàq da wuti sa gétt noonu la demee moo tax Pikine ba léegi mu ngi fi yenn saa mbër yi am ay komba ñëw fi ànd ak booy préparer seen combat loolu yëpp kin la. seen seen booy bii seen seen mbocc bii seen xaw ma Boston xaw ma moom Mamadi Ndiaye la Mamadi Ndiaye lay bëree grand champion boobu ñu naan Mamadi Ndiaye. waaw moom lay bëree waaw kooku kooku doomu mbër la. te Pikine xamaguñu kan mooy Ndiaga Thiam. caatu Boston. billaahi. kon kon mooy Ndiaga boo xam ne ci mu ngi ci yoonam. bu joxe cër. Hmm. dëggal ay entraîneur am. tey maa gën a tuuti si équipe sax moromam sax man maa moom ay morom lañ mais tey bu fekkee day nelaw ma ne ko alaw foo nekk jógal day bàyyi li muy def ñëw te lu gën a lu gën a baax si mbër lool la torop senegal nag ñu ngi dégg ñu ngi wax Mamadou Ndiaye Mamadou Ndiaye mbër la Mamadou Ndiaye ak Ndiaga Thiam mosante nañ si àll bi xamante nañ nit ñi ñag ñoo xamul bu ëpp ku daan ku dul ku ëpp ku dul daan ku dul maani ku dul maamadi ku dul maamadi am na lu ëpp loolu non ragaluñu loolu ndax ci ci ci ci wet gépp lay bëree waaw ndax Sénégal xamaguñ ko waaw lépp lay bëree mais nit ñi buñ jógee dañ naan moytul nangam ba la mën te am na lu ëpp loolu waaw ndaanaan la kon kon bu ci yàlla defee sutura day dem non gëmuñu ni kii dina ko téye gëm gëm nga ni tey caatu Boston no gëm nga ni caatu Boston mën na nekk troisième mbër buy dugalaat couronne bi fii ci Pikine. déggoo ma ni da nga maa yow da ngaa dab sama lanc mais li metti Pikine gëm naa ni moom moo koy fajal waaw Ndiaga Thiam limi def am na ci fulla ah. am na ci fayda bi mbër mi tegalee ñetti ténor yi nekk Pikine dan ko bi mu tëddee nelawul kon kooku su gëmee gëm na ni li metti moo koy fajal taatu Boston. moom dama koy kaañoo parce que sama jantal booy la te damaa gis tamit mu bëri jàmm tamit man maak moom dañuy dañuy fooka frais genre yooyu noonu moo tax fu ma téye micro dama koy kaañoo rek. waaw mais gëm naa ni. nangul na day nangu loolu. ndax moom du ngaaka nante la day nangoo kaf day nangoo ree xam na lépp waaw mais boo koy dog di ko kaañoo day na da war a nangul loolu ndax loolu day bokk ci li koy def jom moom. kaño bi ngui koy kaño est-ce que mën nga wala meuno lolou da koy def jom du nga ka wa mom ci pegari la yoro wa mom ci pegari la yoro xamna lepp mais li li ha tafatin kii waaw xam nga li ma gën a neex ci mom moy du wax manam loko loko mohammed déet mu def dama leen di tek lo xam ñom dañuy dem banane est-ce que mbaaxe mi dorogewul te duñu bayyi waaw te duñu wax wala kii dafa waaye kii mooy waaye kii lu mu ñuy teg waaye lii dafa mën a nekk non booy bu joxe cër la su defee naka su dul noonu soo ko wooyee xam nga lu muy wax maay jéggalu ci li mu tegu nii bu ko teg bu ko teggiwul. yoon bi waaw bu ko teggiwul. bañ a téye succès. jël gi takk ko si ndigg teg teel ko koo teg ci bopp bi gone yu bëri ñu ngi yàqule dañuy teel jël kaala gi teg ko ci bopp bi kaala gi day njëkkee si ndigg li bu yàggee bu ñëwee ci bokk ba lu ko fay jëlee du yomb. Ah, mais boo yu bëri dañuy dañuy dugg ci làmb am benn wuyu rek ñu jël kaala gi teg ko si kam nañ daan romb di leen nuyu di commencé ñot di champion te champion amul ku yàlla dimbali rek a fi nekk waaw non champion amul ku yàlla dimbali moo fi nekk Pikine mbooloo tool boobu dafa amoon ay tonnerre yoo xam ne yu bëri bëri bëri dañ fiy fël ñu nen ñu coow leen du yàgg tuuti ñu dem yeneen écurie tamit da nga gis booy bu tëll ñu coow ko du yàgg nga gis nga mais pourtant booy bi amoon na yoon bu baax fekk fa mu tegu woon la teggi jël beneen yoon fi mu tegu nii bu fa tegul gaa yi dañ koy dégg de waaw. fi mu tegu bu ko teggiwul gars yi dañ koy dégg dañ koy dégg. ragaloo ko ak moroomam. non non. pare nga pour mu dem dóoranti. déggoo pare naa pour loolu. fin de saison moom na booy bi am combat arène dem dóoranti. déggoo loolu ragaluñu loolu ci moom ci moroomam. ñeme nga buusi. kii da koy damm. non léegi bu ne bu bu wuy ma taxawal lekk bu waaw bu amul niveau làmmiñ bu rëy la yor kooku làmmiñ bee rëy day pokaleeru mais làmmiñ bee rëy su combat bi amee une minute ma bàyyi ko kon xam naa sa sama mbër li nekk ci moom déggoo lu mu la kum ci jàpp nga xool fooy tëddee. yow su ma ñëwee émission Pikine mbooloo dinañ gën a yaatal après sa temps de parole jeex na merci beaucoup jërëjëf rakk ji ah yàlla bu yàlla tas yaakaar amiin amiin amiin waay amiin amiin amiin tamit ñëw ci équipe tamit ñu lay seedal ñu lu rafet say say ñëpp seedal lu seedal la lu nice loolu dafa jafe la xam nga rek ñun moom ay ndaw lañu ñoom ay mag lañu wax dëgg neen bu ñu waxee def leen lii ñu def loolu bu ñu waxee bàyyi leen loolu ñu bàyyi loolu waaw ñun moom noonu la ñuy dundee suñu live dama ne da ngay seetaan football moom duma ko seetaan équipe nationale du Sénégal bu football non non man jooy dem jour buñ koy finaalu billaay wallaay suur boobu damaa tak sama daal yi dem antarma équipe nationale déggoo ma de man football du ko seetaan nga xam naa ci lu bari ah. man damaa xam ay joueurs yi man daal ay mbori mbori nga ma mën a wax équipe man loolu yëpp du ko suivre gardien ah gar gardien bi gardien bi gardien bi est-ce que du kii njaago bi njaago bi ñu tudd est-ce que du Edouard Edouard bi laa joxuma ko waaw numéro 10 bi nu ke est-ce que du waaw ah yow yaa ngi yow xam nga Krépin kay kon xam nga joueur yi ah ma man tuur boobu rek laay dégg. d'accord Sénégal fii kuy sa waykat kuy way nga kontaan su ma ne waykat nag mooy mooy mbalax maan yi waykatu làmb yeeg zikarkat yeeg ñëpp. non ci zikarkat yi. kuy ñëpp. ñëpp waaw waykat làmb yeeg mbalax maan yeeg ñëpp. ah non man kay sama waykat moom mbayang la. mbayang lum billaahi billaahi wallaahi moom bu woyee rek damay jooy. mbayang lum billaahi kooku moo ma yëngal. wallaay Azim. wayu Mbayang Loum da lay yëngal. billaay def may yëngal. d'accord question de comédien comédien sénégalais kan mooy sa comédien kan moo xanaa <laughs> soo ah, technique. <laughs> waaw technique mbër la de du comédien de. comédien laa la wax kan moo lay reetaan ah, ma jël Ndiankou. Ndiankou Fala Malick waaw Ndiankou Fala Malick. de Thiop lan mooy sa plat na. de. jox ma loolu moom mënuma ko wax waaye bari na. non bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma sën rek boobu non garaawul bàyyi ma bàyyi ma sën rek. question suivante bi fan moo la gën a neex ci Sénégal ban koñ ban quartier ban gox ban dëkk ban bërëb fan moo la gën a neex Sénégal. ah xam nga nit tamit am foo nekk moom neex na la. fan moo la gën a neex. ah fii ma nekk nii moom neex na ma trop. Pikine waaw waaw. Sénégal Pikine moo boo doon tukki ban réew ngay dem. man hmm. ah fu ma jógee Sénégal. boo doon tukki génn Sénégal ban réew ngay dem. xanaa ma dem Espagne rek. Espagne waaw boo waaw ba tey ci question ni ma wax ak yow tekki dal ci ju bari loo ci njëkk def non xanaa liggéeyal samay waajur rek. loo looy defal say waajur. samay waajur xanaa ma ma laaj leen lu mu bëgg ma defal leen ko. non samay waajur li ma leen yéene moom wax dëgg nee la bari na trop trop trop trop trop nee la bari na de. bilaay yóbbu leen Maka. waaw bilaay. tey ci question réponse yaa ngi Sénégal ah? lan ngay gis ci réew mi loo xam ne neexu la loo xam ne tey boo xoolee benn jour ñu ne la lii boo ne jëlee leen ko fi ñu jëlee ko fi lan nga fi Ah, loolu ah loolu moom bari na wax ah, dëgg ne lu bari na moom. am na ku ma ne woon agression la fiy jëlee am na ku ma ne woon jëw la fi jëlee am na ku ma ne woon yàq nit la fiy jëlee. jëw jëw moom nañ ko fi jëlee. jëw waaw waaw benn baat da nga naan jëlee leen fi jëw. Mhm. baaxul waaw baaxul baaxul la. Mm. ban jour moo la gën a neex ci àdduna jour boobu lan nga dund jour boo xam ne da kontaan xol sedd ba nga yëg. non jour yëpp. benn jour boo xam ne kontaan nga lool lool lool. non man ah xanaa ma mënee liggéey rek jox samay waajur. waaw jour boobu laa gën a. Mhm. boobu kontaan nga. billaay trop. mais ban jour gën a man. bi hmm. nga tey jour la gën a naqari ci ma gën a naqari ci at mi. waaw jour loolu moom wax dëgg neex la moom. benn jour la lan moo xewoon jour boobu. jour boobu ah loolu moom wax dëgg neela <laughs> jaww ma ko moom non bàyyi mu bàyyi mu sëdd rek non non bàyyi mu bàyyi boobu moom mu sëdd no garaawul bàyyi mu bàyyi. dernière question dernière question soo nekkul woon mbër lan ngay nekk soo nekkul woon mbër joueur football ngay nekk box boxeur ngay nekk basketteur ngay nekk rappeur ngay nekk wala lan ngay nekk soo nekkul woon man su ma nekkutoon mbër itam maanaam yooyu nga lim noonu yëpp du leen doon non. non man yeneen business yooyu yëpp neexuma man daal mborum daal moo ma neex moom maa ngi ci. mbër a doon billaahi lamb rek nga mën a def kese. jàmm si yow rak ji c'est comme si la ti del dire seedu dem ci benn épisode yow c'est première fois may déplacé wu ñëw seet si la mais xam naa du mujj tey ah li man di woon di question fii laa koy yemale ñu waajalaat leneen lan ngay tàggat. non xanaa di gërëm gaa yëpp. billaahi di gërëm sama dëkk séeréer yi séeréer laay wax sax waaw sim naa bëggoon séeréer ziare a nuun a paax a paax leya nuun ne o ɓiy nuun o ndeɓ nuun bilaay na simna nuun a paax a den jam waaw wax dega ne yàlla combat den den kandam ndam taxam tous les jours bilahi gidma wajur kimia mi a paax a paax den bilahi watu tuuba ngas wax dega fopo mu seereer laya kaame rek may ziare nga paax bilaay jam même xeɗana waa samba dia wax dega ne yàlla may bege adna paax a paax billaahi fi ma nekk nii nii nii ci garage bi maay bëgge gaay yëpp billaahi ñoom buuba ñoom pap waaw billaahi ñoo yëpp maa leen di bëgge bu baax a baax fi ma nekk nii ci kër gi ñoom ngoomaak maa leen di bëgge billaahi maay ziyaar ñëpp daal bàyyi ma kenn wax dëgg di ziyaar père Baba Diallo wax dëgg ko la kooku pikin mbooloo amuñu seen fay billaahi waaw di bëggee ñoom kot si kaana ñoom Mbàkke yëpp billaahi gaa yëpp am ma seen fay. billaay ñëpp kay ñoom bay fall ci ruk carak waaw. billaay ñoom ñoo ñëw yëpp am ma seen fay. waaw di bëggee mbër yëpp ñi nga xam ne wax dëgg la jàpp nañ ci combat bi. maa leen di bëgg bu baax a baax a baax. billaay ñoo ma doon may contact xam nga di ma encouragé di ma wax lépp. billaay jaaral nii jaaral nii waaw ñooñu tamit aw ma seen fay. di dem ba sama dëkk billaay di bëggee sama booy bu baax a baax Cheikh Thiam waaw maa ngi koy bëggee bu baax kooku tam itam mbor la billaay ñuy ñaan gaay yëpp ñu gaay ñëw jàppale ñu billaay bëgg gaay yëpp awma seen fay billaay kontaan naa ci yéen bu baax a baax parole de Tapha sama gars yi l'émission tire à tey ñoo ngi woon fii ci Pikine seen émission victoire après combat ñëwoon seen si Tapha bu ficelle ma leen di joxaat di daje ba beneen yoon ziar ziaraat jaa ngeen jëf sama gars